ñu jógee fi ci ñu de ci Belende dem ci président dem ci président ah. jërëjëf bokk internet yi nga xamante ne ñu siiru fële ci àdduna bi te ñu amati mbégte a baax ci li nga xamante ne mooy ci Belende Belende yi donc nga xamante ne ñu sa tey ñu def saa si beneen idée ñëw def ci loo xamante ne joxe ko ay ndogu joxe di leen maa leen di siyaar di leen di leen nuyu di leen baalu àq ci ci ci koor gi ah di leen baal itam di def Blindé Blindé yëpp ñi nga xamante ni tey fekk naa leen ci ah ñu def initiative bu rafet bi nga xamante ni voilà quoi depuis le début je peux même de de notre ba léegi ñu ngi koy def di nuyu aussi tey euh, ñëpp ñi nga xamante ne am nañ chance seetaan joxu ndogu bu CBI muy Blindé International maa leen di bëggee bu baax a baax koo jëm ci li ci daara yi. Hmm. yi li nga xamante yi parce que am problème yoo xam ne ñooy dund obligé yi taxaw ci mbedd mi ak ñu ko ñaan boobu noonu je pense que je pense que ñoom la tey jii mën naa ne ñoom ñooy sama deuxième famille lépp lu ma nekk suba guddi ngoon bëccëg maa ngi ci ak ñoom te comme li may léegi léegi ku nekk xam na ni tey jii dund ak célébrité yombul tu vois di nga dégg lu nekk di nga gis lu nekk waaye terewul depuis le début ba léegi ñoom ñu ngi jàpp taw a bàyyi di ma jàppale ah, di ma jàppale ci li ma mën di ma jàppale ci li ma mënul peut-être tey man mënu ma woon organiser wu de telle sorte pour defal lii sama bopp waaye tey ñoom ñooy samay bët ñoom ñooy samay loxo ñoom ñooy samay tànk te ñu ngi may teewal fépp donc dama leen di jaajëfal bu baax a baax parce que tey ni ñu ko defee nii Dakar noonu lay amee Kaolack noonu lay amee xombol noonu lay amee Ziguinchor Blindé yëpp fépp fu ñu nekk ci Sénégal ku si nekk mi ngi représenté Ngaaka Blindé foofu di ma defal ay mbir yoo xamante ni mën naa ne bu doon ko man ak man kese dama leen di sant di leen gërëm mhm. daaw ñu gis la nga def euh, benn social boo xam ne sénégalais dañ ko apprécier nga doon dem euh, ci l'hôpital yi xool ñi nga xamante ni seen ordonnance dafa manqué nga dimbali leen xool tamit ñi nga xam ne dañu war a def ay éco nga dimbali leen waaye tamit jàppale ñi nga xamante ni vraiment war nañu fay l'hôpital changement bi ren nga ñëw ci taalibe dafa am ku la ko dee wala dafa ko digal. <laughs> non non pas digal parce que man laa quasi totalité ci samay initiative ci jëm ci koor gi du si jël benn décision sans pour autant ma waxtaan si ak ñoom. daaw bi ñu tolloo ci koor gi comme ni nga ko waxee dem nañ ci hôpital yi mu nekkoon initiative bu rafet ren ñoom ñoo amoon yéene itam tey def ko ci benn daara boo xamante ni mi ngi fii ci sama gox biir géejawaay man ma juddoo fi màggee fi yaroo fi te amaana yëguma woon daara bi wala gisuma woon daara bi ñu buggoon tey ma jeter si un coup d'œil bi ma ñëwee aussi ñoom ñu indi tey seen ay ndogu jox ko daara ji ndogu ak ñoom bi ñu noppee tamit bu ma ñëwee ba gis jël initiative kat ne man tey gis bu ma gis daara ji bu ma fi jugee incha allah rabbi am naa yéene ñu def ko chantier defaat travaux bi liggéeyaat daara bi xam nga defaraat bâtiment yi parce que gis naa ni mu mel defaraat néegu xale yi peinture ko jëm leen wutal ay matelas ba ñu gën a am confort te loolu noonu yëpp tey su demee ba initiative boobu noonu am ginnaaw yàlla ci ñoom la ko jaarale te projet boobu dinaa ko tegaat seen loxo am yaakaar ngeen gunge ba sénégalais gis ko parce que après jeexital bi yëpp Sénégal la ñun lépp lu ñuy def wala doxalin bépp bu ñuy doxal mooy na la ñu war a def pour Sénégal gën a am ay tànk kanam initiative yooyu yëpp nag peut-être man du ma koy yëg wala du ma ko gis mais lu ci bëri pour ne faaw ñu boole ci taalibe yi nga xamante ni vraiment dañ leen tuddee euh, jirim amuñu ndey amuñu baay parce que ñi leen ñi leen yor juruñu leen effectivement xam nga tey boo déggee kilifa daara ji lu wax nekkat seen benn yaay dundalu leen seen benn papa dundalu leen ñoom ñooy xool li ñu am ak li doomu aadama yi am di leen jàppale yaa ngi dégg muy gërëm waa koñ bi donc da ngay xam ne ñoom nekk nañ dans le besoin tey man peut-être ngaa ko blende ak CB yi muy blende blende yi mënuñu matale fépp waaye chaque année à travers wooru weeru kool gi dinañ jël benn initiative boo xamante ni dinañ ko def pour montrer au wala nit ñi nga xamante ni am nañ tuuti doole bu leen yàlla may ñuy xool ñoom tamit seen angle la ñu war a dimbalee Sénégalais yi daaw def nañ ko ci hôpitaux yi dinañ ñu ñëw def ko ci daara yi déwén xaaral blende yu ñëwaat indiwaat demaat social bi ci beneen angle wala ci beneen optique comme li may rek li may bëgg rek mooy ñi nga xamante ni mën nañ wala ñu am à travers peut-être tey blende blende yi ñuy gis situation yi ñuy teg am na des yoo xamante ni soxlawul nga am ay milliards soxlawul nga am ay centaine de millions ay miñet boo ko amee suñu borom dimbali lee ko mun nga am noo ci dimbalee jaam yi moo tax ren ñu ñëw ci daara yi ñëw pour visiter ak ñoom ngir jël initiative defaraat daara ji ba gën a ba gën a taw fi waaw si kàttanu yàlla yaakaar naa lépp luñ mës a def ci ci koor gi comme li ma wax ah, nit mat mënul lépp yéene ngay am tey li nga xamante ni fa sama foofu la sama doole yam man danaa ko def li nga xamante ni tey am na ay yeneen nit yoo xamante ni am nañ yéene jàpp ci bu ñu ñëwee kenn du leen tëjal suñu ay bunt waaye terewul man boog initiative bépp bu may jël du ma ci xaar kenn li ma war a def dama koy def tey bu dul blende blende yi ak nit ñi nga xamante ni parce que kenn du gërëmu nit sax doo gërëm yàlla am na nit ñoo xamante ni à chaque fois bu ngaa ko jógee pour jël benn initiative même bu nekkee seen fukki dërëm dinañ ko ci def ngir jàppale moom ngir yombal ma liggéey bi donc comme je dina dinañ ko def ci kàttanu yàlla te du te du yàgg bu ñu génnee ci koor gi tak dinañ entamé travaux yi leneen lu fekk si ñu gën ko fexe mu yaatu bu ci nit ñëwul tamit lu ñu am as tuut dinañ ko ci def te sénégalais yi dinañ ko gis bu la téyee ba nga dem te duñ la laaj ah parce que vraiment sénégalais yëpp xam nañu ni yaa ngi nekkoon ci liggéey album alors euh, ñu bëggoon a xam album boobu fan la tollu ak lan moo ko téye ba ba tey <laughs> que doo laaj blende blende yi <laughs> waaw album bi tamit yaakaar naa fi mu toll ni pare na li gënoon tax ñu ñu ñu ñu repousser ko tamit c'était pour ñaan yàlla élection yi jàll si si si jàmm ba Sénégal mun aussi reprendre ses activité normalement et yàlla na ñu jàmm ba voilà am nañ benn gouvernement bu bees j'en profite pour féliciter son excellence monsieur Bassirou Diomaye Diomaye Faye di ko ñaanal aussi yan bi diis ci moom mu nekk ndam tamit pour sénégalais yëpp incha allah rabbi yaakaar naa ni bu ñu génnee ci koor bi du yàgg dara dinañ afficher comme di dit euh, la dernière date parce que deux fois je pense dinañ euh, euh, afficher la dernière date mu nekk sorti album bi et ci liggéey ak Blindé Blindé ak équipe bi nga xamante ne ñu ngi si ginnaaw yëpp quoi. ne album bi album international la est-ce que c'est waaw tey fi àdduna toll itam kenn en kenn waxatul album national wala album international expression yooyu noonu fi àdduna toll kenn waxatu ko parce que on est dans un monde planétaire tey da ngay nekk Sénégal ma génn benn musique léegi léegi mu egg Paris egg États-Unis egg Chine. waa waa Paris génne soo léegi mu egg fépp si àdduna bi donc on parle plus d' international mais on parle juste de liggéey pour faire qualité boo xamante ni soo ko génnee mun na dem fépp si adduna bi te loolu ni ngi si bu baax a baax. ndaaka dafa am ñu ne tey ko téye maanaam ki nga bokkaloon clip boobu euh, nga xamante ne génne woon nga ko muy Mamy Cobra Veza Veza gi ni mel dañu ko teg loxo ban leeral nga indi ci loolu que ni dañu ko teg loxo loolu moo ree moo tax album bi ba tey ji ko ban leeral nga ñu ciy def. kan lañ teg loxo. nga àndaloon ci clip Visi ah ok milk non non na non non même pas kooku en fait la comme nattu yu muy dalee euh, nit ku nekk quoi. yàlla ko suñu borom génne fi mu nekk parce mi suñu xel mais loolu terewul woon album bi bañ a génn tu vois moom si man la bokk sama njaboot la sama xale la sama rakk la sama doom la à la limite bu nattu dal ñu ngi def jéego yu ñu ci war a def di ñaan yàlla yàlla génn ko foofu di ñaan Sénégal yëpp aussi ñaanal ma ko ci moom parce que fu mu munti nekk sama xel mi ngi ci moom waaye terewul ñun ñu def liggéey bi war mais li war si suñu diggante ak moom tamit dinañ ko mootali ñaan yàlla génn ko <laughs> waaw waaw waaw <laughs> waaw mani loolu loolu mooy li ma la wax léegi comme toi comme léegi li nga wax ni album international tey dañu toll ci benn monde boo xamante ni artiste waratul am fenn limite comprendre artiste waratul am fenn limite te sooy liggéey liggéey boo xamante ni war na egg fépp ci àdduna bi da nga koy booster tey li nga xamante ni mooy sponsoriser les page sponsoriser les les comptes lu existe la ci àdduna mais Sénégal moo nekk réew mu coincé boo xamante ni quand tu essaies de booster parce que on paye cher ah quand tu wala nga élargir sa communauté dañuy gis ni loolu en manque de professionnalisme la or bu ñu demee ba ci kanam ak kanam di nga gën a comprendre ni liggéey fu mu toll ci àdduna bi dañuy gis Justin Bieber di booster dañuy gis Burna Boy di booster donc pourquoi loolu moo ci am te incha allah rabi pareeguñ parce que bëgg na suñu liggéey saawaan baawaan fépp ci àdduna benn interview wax ci yow. merci beaucoup merci beaucoup jaajëf.